ndax Ousmane Sonko ak li nga xam ne nemmeeku nañu ko euh, bërki démb démb ak tey jëm ci audio yoo xam ne génn na loolu yëpp kon daañu ko waxtaanee ci biir plateau bi ak ñi nga xam ne ñooy sunuy gan ñu ànd ak ñoom ci waxtaan bi bokk na ci jëwriñ ji nga xam ne mu lañ dénk wàllug euh, sport dégg ko wa it wàllug loisir euh, di Yankoba Diatara am nañu mbégte daal sur le plateau bonsoir monsieur le ministre waxti bokkal plateau bi di nuyu mbokk Sénégal yi ñuy seetaan ci biir Sénégal ak ci bitim réew di am mbégte bu baax am ak yéen jotaay merci. jaajëfal nañ la bu baax a baax ñu am fi également euh, Demba Seydi coordonnateur publiez ce que vous payez membre de la société civile am bi aussi ak sénégalais yi seetaan net ñi dañu déglu aussi si réseaux sociaux yi di rafetlu aussi jotaay bi euh, bëgg a ci li nga xamante ne moom mooy échange yi ñu dajale fi tey merci. jaajëfal nañ la bu baax baax ñu am fi également Oumar Sy moom moo doon tête de liste suppléant yu coalition Yewwi Askan Wi mu nekk ci. parti espoir ak modernité euh, di PEM bu président Habib si nekk kon député ci assemblée nationale fare ci coalition Yewwi Askan Wi nuyu nañ la dalal sur le plateau monsieur Sy bonsoir. Fatou ñu ngi lay nuyu di nuyu ñu ñu bokk ak plateau bi ak sénégalais yi ñuy seetaan yëpp. jaajëfal nañ la bu baax a baax sunu naataango Aliou Sow journaliste Walfadjri nuyu nañu la Aliou dalal la sur le plateau. Mhm. allez-y maa ngi leen di fay ah euh, di di leen sant di leen gërëm c'est un plaisir d'être d'être d'être sur ce plateau donc euh, en ce en ce vendredi eh ben euh, di leen ñaan yàlla j'espère que li ñuy wax fii yëpp dina amal njëriñ Sénégal et que di ñaan yàlla toujours sàmm ñu yàlla suturaal ñu et puis yàlla dëgëral suñu cër musal ñu si seytaane et puis et puis jubanti ñu ci yoonu siraatal mustaqim mhm. waaw kontaan nañu trop d'être d'être sur ce plateau yal na leen yàlla sàmm jaajëfal nañ la bu baax a baax Oumar Faye l'ami de Serigne Saliou bonsoir Oumar bonsoir Fatou maa ngi lay nuyu. ay naa la. ci àjjuma ji di nuyu invité yi du nuyu chroniqueurs yi di am mettit hmm. ndax man dama def visite dem hôpital Dantec jël marché bi jox fa ñool ñoo ñuy tabax hôpital bi am nañ financement yor nañu lépp dara amu fa may wax nii mais santé ngi nii président conseil d'administration ba fa nekk mi ngi nii employé nekk dante ngi nii dara avec les espagnols c'est grave c'est grave te waxtaan nañ ko fii ba sëriñ wax sax ne dara du fa am dara amu fa alors que ñoom waxoon nañ ne yor nañ financement bi yor nañ dem nañ ko génne rien n'a été fait. Moi, je me demande comment on, comment on choisit les entreprises. Dantec, patrimoine la du faux am na ñu fa jëlee. Mhm. transférer leen yóbbu leen feneen. où sont les milliards yi ñu waxoon dañuy defar Dantec. or en cette période il y avait un Sénégalais qui était là indi financement indi lépp taxaw ne je suis prêt reconstruire sans vendre benn mètre carré même ci au niveau de l'hôpital Dantec boobu dara. amul dara ñu daal étranger yi rek les entreprises sénégalaises du ñu am dara mais loolu nag vraiment il faut ñu il faut ñu régler problème boobu pourquoi les entreprises sénégalaises ci ay gros marché du ñu gañe leen mais wax naa leen ko nee leen dem leen ci association yi association patronale bi mujjee juddu muy club cinquantaine c'est la préférence nationale ils se sont battus ba ba gañe lañu ñu war a gañe ci barrage hydraulique ñëw leen ànd ñoom ngeen taxaw xeexandoo les marchés pour que nga gagné ko yéen Sénégalais yi parce que man fu ma toog il faut ngeen ma ngeen ma wax préférence nationale li ñuy wax yëpp ndoxtaan neex na mais dafa am ñoo xamante ni bu existé wul réew mi du. Mhm. et le secteur privé national. mourant wax naa ko les travailleurs wax naa ko lépp comme dañu fi am ay association patronale yoo leen défendre allez maintenant vers cette association qui ki là qui défend les intérêts des Sénégalais qui est le qui est demain tous les marchés yi fi am ñu def ko cinquante cinquante bu ñu ko deful réew mi di dem c'est beau qu'on parle de ce pays là c'est bon ñuy waxtaan ci yëpp mais waxtaan na ci ne ñun bu subaa dañu am problème mu añ problème mu ndékki problème mu fay courant alors que ko mën a may dëgg dëgg dëgg c'est la c'est c'est le secteur privé national moi je pense que il est temps que ces problèmes là soient réglés c'est grave mënuñu tous les marchés ñu koy jox des étrangers ñuy jël ay marchés di ko jox ay mucaat di ko jox ay sénégalais bu subaa ñu bëgg a développer c'est pas possible même bu ñu indee seen i financement même ñi ñuy jox ay financement bu ñu ko joxee war nañu imposer les entreprises bu ñu imposer seen entreprise aussi na leen imposer cinquante cinquante comme tout le monde Dantec yi ngi nii et demande au club cinquante de se déplacer et d'aller vers Dantec un marché ki devait être gagné par des Sénégalais et qui ne l'ont pas et qui n'en ont pas bénéficié et je ministre mi may dégg ña fa nekk ñu may dégg nañ ma tontu benn xeet teguñu ko fa li ma ragal nag mooy société bi jël jël terrain bi ñu def ko ci tur mu dem outil financement mhm. parce que mën na nekk dañ koy def dañuy ñëw ci réew nga jox leen terrain bi ñu ut financement yóbbu ko dans les banques ñu jox leen xaalis bi xaalis bi ñu leen jox ñu jëm yóbbu ko feneen régler beneen problème on l'a vécu ici à Diamniadio avec une société marocaine avec trois cent cinquante et quelques hectares yu ñu ko joxoon day tax ay ay ay euh, comment dirais-je ay logement dara def ko après dañu mujjee jëlaat suñu baay ça nag c'est des choses à à régler définitivement. Mm-hmm. très bien Oumar. merci c'est clair alors Serigne Sall. monsieur mm. Yakhna ñu la yow it. Ah, Fatou maa ngi lay fay. Mm-hmm. di nuyu en premier monsieur le ministre des sports di nuyu aussi euh, honorable député nuyu aussi monsieur Seydi nuyu sama xarit chroniqueurs yi di nuyu aussi l'ensemble des téléspectateurs vraiment euh, du Sénégal ñuy suivre fépp à travers et puis aussi sargal leen nag parce que je crois que sooy dox ci mbedd mi ci ngay xam vraiment sénégalais yi yëg-yëg bi ñi nga xam moom lañu am ci ñun ñi quoi surtout yëg yëpp bi ñu am aussi ci télé bi c'est la raison pour laquelle euh, épreuve yi ñu fi traversé fan yi ci ginnaaw ça a été vraiment extrêmement dur pour une télévision quand même boo am yenn audience bi di subir yenn diktat de l'État aussi je crois que ça pose vraiment problème et puis aussi di souhaiter à l'ensemble de la communauté chrétienne parce que demain après demain c'est la fête de la nativité vraiment de souhaiter à l'ensemble des catholiques du Sénégal une très très bonne fête vraiment de la nativité voilà merci. jaajëfal nañ la bu baax a baax Saliou Chérif nuyu nañu la bu baax. fay nañu la. fay ba pare comme ni ñu ko tàmm defee rek daal di nuyu sama waa dëkk Tivaouane. Mhm. daal di euh, ci nuyoo bi Serigne Babacar Sy Mansour mi nga xam ni mooy njiitu njabootu Cheikh Seydi Hadji Malick yëpp. di nuyu sama waa dëkk bi yëpp daal di dem siyaari Touba gi nga xam ni fa bokk daal di siyaar Cheikh mun tax di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te gën a wér moom njabootu gépp njabootu lislaam bi daal di nuyu ñi nga xamante ni si ñooy waa réew mi ak waa bitim réew daal di nuyu ñi ñu bokkal plateau bi nuyu njiitu réew mi nuyu waa kuje gi nuyu société civile bi di nuyu waa diaspora bi bu baax a baax a baax a baax Eh, di ñaan yàlla suñu jotaay bi ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin eh, te lépp lu ñu fi wax mu doon dëgg te jur njariñ Mhm. ñu koy jaajëfal bu baax a baax ni ma ko waxee waxtaan wi nga xam ne euh, ci la ñuy njëkk sumb nag euh, moom mooy rapport Cour des comptes restez chez vous on la République noonu la ñu ko formuler fas yéene ko waxtaanee euh, ñu dore ko ak yow monsieur le ministre gis nañu tey sa communiqué bi nga xamante ne génn na communiqué bu yaatu lool boo xam ne def ngeen ko ci biir communiqué bi nag fi nga xamante ne mën nañu ko faa jàpp moom mooy nee nañu rapport bi dafa fësal ay faute de gestion daal di formuler ay recommandations yoo xam ne lu tolloon ci mille milliards bu nu ko dee xayma eh, xëy na luubal gi mi ngi toll ci six milliards six cent quatre mille sept cent quatre-vingt-quatre quatre cent dix francs CFA est-ce que aujourd'hui eh, bu ngeen ko xayma noonu tënk ko ne eh, ci mille milliards zéro virgule sept pour cent kese la ñu nemmeeku rëq-rëq melu ne luy minimiser li nga xamante ne moom la rapport Cour des wax ci li nga xam ne moom moo jëm ci faute de gestion surfacturation ci yenn factures yi entre autres jërëjëf Adja may mbokk yi ñuy seetaan yëpp di nuyuwaat encore ñu ma bokkal plateau bi mais bala may sori ma peut-être euh, souhaiter à la communauté catholique comme ni ko président de la république dafa démb suñu mbokk suñu saaliyu def ko mooy souhaiter nos meilleurs vœux donc à la communauté chrétienne mais aussi à tous les sénégalais ndax euh, fête de Noël moom sénégalais yëpp ko bokk muy chrétien comme muy musulman ndax Sénégal dañ naan benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar kon ñu ngi koy souhaiter à tous les Sénégalais no meilleurs comme ni ko président la dafa démb féliciter également la communauté chrétienne mais également ñaanal Sénégalais yëpp at bi eh, bi nga xam moom la ñu jublu wala dëgmal ko yàlla defal ñu mu nekk atum jàmm atum sutura mais également atum naataange comme nañ ko ni ko mag ñi doon waxe mais également peut-être me corriger un peu mon frère le président fay donc ci vraiment yi mu wax lu jëm ci mbiru la Dantec vraiment du woon objet même sujet bi mais dégg naa ko mu wax ci lu bëri mais may corriger hmm. le Dantec est un est un national président la République moo jël décision ci ni Dantec meloon jël décision tabax hôpital mën naa ni boo xam ne bu mucc ayib la pour waa Dakar mais également Dantec c'est pas pour Dakar seulement c'est pour le niveau de pour tout le Sénégal mais également mem la sous-région président de la République daan ni schéma bi nga xam ni moom la tëral mooy nañu jël une partie du patrimoine de Dantec échange ko jël ko tabax ci mu ñu wàññi am det ndax tey Sénégal niveau ma dañ naan dañ ko dépassé dépassé ñu ko mais quand même ñu ngi egg ci limite te egg besoin Sénégal toujours day gën a yokk ñu formule boobu lañ jël produit bi ñu jël daan moom lañ ciy dugalaat ñu dañ dañuy defar euh, hôpitalu quatre cent lii hôpital bi biñ ko bi ñu ko d'accordé man dafa am benn jour ñu may test ma waroon voyager ñoo xam ni ay militaire lañu mais danteeg lañ ci di ma testé pour Covid ni ma mais monsieur le ministre li ñu lay ñaan soo demee nel président de la république depuis plusieurs années ñu ngi koy ñaan pour ñu tabax Dantec nañ ci mbali mel ni ko ah Adja loolu di dinaa ko jottali président ndax ñooñu ay médecin militaire lañu moo tax bi président jëlee décision bi ma ni fekk na waante ci luñ bëggoon ndax ñun ñëpp xam nañ tàntak ni meloon ba dafa demoon un moment où maintenant spécialité spécialistes yi médecins yi dañuy jël presque tabax wut ay financement tabaxal seen bopp mu mel ni clinique privée ci Dantec yéen gis ngeen ko te Sénégal yëpp ko bokkoon loolu moo fii projet président de la république am président nag xam nga yow ku ñu fonk nga ndax ni ngay défendre sénégalais yi nga xamal ni ñoo ko bokk. mais dafa lu ma jaaxal defal naa rek ndax démb. mën ñoo àndoon combat bi. tey c'était juste une parenthèse dama koy dama koy fàttali rek simplement. Mm-hmm. que président revoiral un peu propos nga dem. bërki démb lañ jógee conseil des ministre président de la république ak ministre dama génne secret ministre kii conseil. Mm-hmm. mais pas plus que hier. président laat mu ngi naan ministre de de la santé fan ngeen toll ci chantier bi fan la toll fan la toll mu wan ko fa base bi nu mu tudd ci installation chantier bi ba président ko tooñ naan fan la fan la fondation yi toll lool loolu laa bëgg fan la chantier bi toll bu génn pour vous dire say préoccupation mooy préoccupation président la république te noonu lay suivre projet yi c'est clair donc pour vous dire simplement président niveau bi mu nekk mooy presque moom chef de chantier la ndax moom projet bu ci nekk moom ci boppam malgré niveau mhm. day topp projet yi ministre bu nekk di la laaj moo tax yenn saa yi suñuy conseil des ministres dem ba minuit on aura l'occasion certainement d'y revenir waxaat ci ci pour revenir Adja ci rapport bi damay fàttali le contexte bi nga xam ni ci la mën naa ni président de la république jëlee décision mobiliser mille milliards pour taxaw sénégalais yi ci mbas mi nga xam ni moo wàcc ci àdduna bi mm. mooy mën naa ni euh, mbas moo xam ni àdduna ñun de ñu bëri dañ naan masuñu gis li mu am ci àdduna bi nga xam ni kon lu jóge ci suñu borom la bi loolu amee président de la république jël décision pour ñu fair face à cette pandémie inédite mais aussi mu nekk loo xam ni kenn masu ko gis ci àdduna mooy àdduna bi tëju ñu tëj frontières yi kenn mënatul génn président ni pour assister le système de santé d'abord ndax li ëppoon solo mooy nan la ñuy jëlee en charge les malades nan la ñuy protéger les populations nan lañ leen di sécuriser nañ leen leen wutale ay vaccin mais également nañ leen di amal nu mu tuddati ay masques protéger les populations mais également nan la ñuy soutenir population yi pour ñu mën a am ci lu ñuy suturlu ndax aussi àdduna bi dafa tëju woon ci loolu le président de la République lancé le programme muy presse programme de résilience économique et sociale ñu évalué ko à mille milliards mille milliards yooyu da ngeen di xam ni six cent trente sept milliards yi moo doon loo xam ne dañ ko waroon jënd ay masques jënd ci ay vaccin jàppale ci système de santé bi mais beneen bi mooy trois cent vingt sept milliards boo xam ne dañ ko doon jàppale les entreprises yi nga xam ni bëgguñu woon ñu licencier nit ñi nit ñi war nañ continuer di am lu ñuy suturlu mooy ci recevoir sayet mais également état bi daf ni leen dinaa leen baal impôt mais également dinaa jël une partie de vos salaires mais également dinaa fayal nit ñi ndox dinaa leen fayal courant dinaa également jënd produit euh, pétrolier yi doy pour courant bañ a manqué pour essence bañ a manqué ci dëkk bi donc kon programme bi dafa am ay composante muy mille milliards li nga xam mooy xaalis bu ñu ci doon génne nga xam ne xaalis la bu ñu génne li ñu jënd ci ceeb li ñu jënd ci ay masques li ñu jënd ci ay vaccin li ñu def ci ay hôpitaux ndax am na ay centre de santé yoo xam dañu leen a transformé pour mën a nekk CTE mais ma ay hôpitaux yoo xam ne amuñu woon dispositif accueillir ay malades ñu daal di koy transformer loolu mooy travaux yi nga xam ni mën naa ni moom lañ jaarale ministère de la santé kon programme bi looloo ko taxoon jóg beneen bi mooy population yi tëj nañ leen nee nañ leen buñ génn ndax mbas mi day wàlle nañ mais également kenn du liggéey ñu doon wuti di doon dem di wuti lu ñuy suturlu mu ñu naan ko ay peut ñi nga xam dañuy daan seen doole mënatuñu woon dem muy ambulant ñeneen ñëpp taaba taaba yi ci dëkk bi nga xam ni presque ñoo ëpp ci population yi président ni nañ ñëpp nag seen kër. monsieur le ministre dama ndànk rek loolu moom mooy le vécu aujourd'hui oui dama rek mooy le contexte loolu nag après dañu am quatre vole vole bi ci njëkk moom la mooy volet santé bi le santé ñu jox leen cent cinq milliards cent cinq milliards ci lañ defal ay hôpital Matlaboul Fawzeyni ci lañ defal ay CTE yoo xam ni dina mën ak kiir nit ñi beneen bi mooy ñu jël le programme d'appui nga xam ne quatre-vingt-dix-sept milliards la ñu waxoon mooy jënd ceeb. vous n'allez pas faire le bilan quand même aujourd'hui on parle du rapport bala may ñëw maanaam bala may ñëw ci ay manquement yoo xam ne wax nañ ko ci rapport bi xanaa dinaa leen wax composante bu nekk li nga xam ne moo composé programme bi mille milliards yi fan lañ ko waroon dugal ba nga xam ni dañu ko audité ak dispositif de gouvernance bi nga xam ne président la tegoon na ko daan nañ ko jaarale nii dispositif de gouvernance ba ngeen xam ni dañ assemblée nationale dafa joxoon ordonnance président de la République ordonnance pour mu valider la programme la bi ñu ko valider après mu ni ministère bu nekk li ñu la affecté ci montant su jëlee bi par exemple li rapport bi wax ministère yi mu cité à peu près la soo jëlee santé santé li ñu ci waroon def lan la jënd ay masques jënd ay vaccin aménage ay hôpitaux mais également jàppale personnel bi nga xam ni ñoo doon assist nit ñi pour ñu fay leen seen i ind ay tout cela soo jëlee loolu dañu ni am na ay nit ñoo xam ne fay nañ leen ay indemnité ci sëy yi nga xam dañu ko doon fay te bokkuñu ci mais loolu mooy li nga xam ni damay wax ni su fekkee ne jël nañu mille milliards population yi nga xam ne jàppale nañ leen ñi am na ñi nga xam ne amuñu woon temps yooyu lu ñu dundee wala lu ñu jënd wuñ dund ñu jàppale leen tey ñu ni ci mille milliards yi am na juróom benn milliards yoo xam ne jàpp nañu ni niñ ko dépensé jaarul yoon kon bu ñu ni mille milliards lañu lañu li mu li mu indi ci njeexital ci lu baax ci réew mi ak ci population yi buñ ko gàkkal ci ni 6 milliards la. kenn xeebu 6 milliards est-ce que vous n'êtes pas en train de minimiser. non parce que dans un pays normal man maa ni bu kenn xeeb 6 milliards. mais dañu ni 6 milliards dañu ni dañu présumer que niñ ko dépensé jaarul yoon. Cour des comptes ni ñi nga xam ni ñooy ñoom lañu plus ou moins. accusé mhm. ni ñoom ñoo ko dépensé defal ndànk épinglé ni leen jaarul yoon ñaari catégorie la ñenn ñi nañ ñi dañu nañ ubbi information judiciaire mooy na na procureur jël dossier bi lañ ko ku ci def faute de gestion yoon jaar daal sa kaw dix la ñeneen ñi ñu ni nañu dem cour des comptes nga xam ni chambre de discipline financière ñoom tamit da leen ñoom waxuñu information judiciaire mais xam nga chambre de cour des comptes également am nañ une chambre disciplinaire mais également si les faits sont avérés mën na c'est nonobstant la poursuite judiciaire ñooñu également dañu war a dem justifier ji ci chambre de discipline financière li nga xam ni ñu ngi leen koy accuser kon deux niveaux yooyu la loolu nag président de la république dafa ni laaxul kenn protégé wul kenn. d'accord nee na ku nekk. li nga xam ni moom la ci rapport bi wax li nga xam ni président de la chambre des de la cour des comptes moo war a ubbi saisir le procureur pour l'information nee na loolu dina ko. dinañ ci ñëwaat ci loolu madame ma wax. vous terminez rapidement ministre la justice pour information judiciaire dina ko mhm. topp. li nga xam ne moom mooy saisir la chambre de discipline financière nga xam ne président bi la pour yeneen dossiers yi moo président nee na loolu nañ ko topp mais beneen bi nee na premier ministre nga dajale la gouvernement les ministères dépensiers. yi nga xam ne dañu leen a tudd ku ci nekk na dem wax li nga xam ni accusé nañ la ko teg nañ ko sa kaw soo fekkente ne am nga ay élément justificatif nga génn ko soo ko amul yoon na def yoo non yenn na def liggéeyam très bien monsieur le loolu aussi il faut mu dinañ ci ñëwaat président loolu dinañ ci ñëwaat